déjà pour le le le euh, le fait qu'il se soit proclamé donc euh, euh donc patron de l'opposition oui. déjà loolu rek euh, loolu loolu loolu mun nañ laaj est-ce que ci lan lan mooy tax ñu ne euh, nit Euh, nit un homme politique sénégalais mhm. euh, mooy patron de l'opposition est-ce que dañ koy wax parce que c'est les sondages wala est-ce que euh, il beaucoup plus efficace mooy un comptage électoral te man dama dama dama gëm ni bu fekkee ni ay élections amaatul depuis 2019 et que en 2019 Idrissa était deuxième aux élections présidentielles war nañu mën a considérer que ni même bu fekkoon ni nekkatul woon ci opposition bi demoon di liggéey ak Macky Sall pour les raisons qu'il a eu à évoquer eh que dafa euh, euh, sóoraale euh, élection présidentielle yi passé yi nga xam ne moom moo jëloon deuxième avec une vingtaine de pour cent mhm. donc après Macky Sall xëy na peut-être ci loolu la jàpp ba tey pour wax xob te bu ko waxee aussi mën nañ ko comprendre je ne sais pas si on est d'accord ou pas mais mën nañ comprendre loolu parce que ci depuis lors boobu ba tey eh ben élection amaatul amaatul élection présidentielle amaatul comme élection présidentielle amaatul nag eh ben en général normalement chef de l'opposition mooy ci ay élection surtout présidentielle wala bu dee dans les dans un régime parlementaire ki nga xam ne moom mooy leaderu euh, euh, euh, majorité bi yegg ci nguur gi ki topp ci ginnaaw am kooku la ñuy considérer comme comme comme chef de l'opposition sauf que fële majorité parlementaire euh, euh, Euh, système système euh, parlementaire lay doon donc donc forcément euh, ki leader bi topp ci leader bu njëkk bi ki ki nga xam ne moom mooy premier ministre bi ki si keneen ki si topp avec nombre de députés kooku la ñuy considérer moom mooy moom mooy mooy kii bi mooy euh, mooy mooy chef de l'opposition mais bii comme on est dans un régime euh, euh, parlementaire hybride parce que lii du régime non mënul nekk non c'est pas un régime présidentiel Sénégal mais xam semi mën nañ ko wax nu ñu neexee mën parce que kuy wax régime présidentiel man pour man Sénégal bon régime présidentiel ku bëgg xam lan la demal nga États-Unis le véritable régime présidentiel c'est le régime présidentiel américain euh, parce que dafa am histoire am fi mu jógee am lu tax ñu koy woowee régime présidentiel te ñi ko copier woon ñëpp noon la ñu defoon sauf que ñun après y a une histoire avec le général de Gaulle parce que entre 46 et et 58 a eu beaucoup de machin euh, problème maintenant ci avenir u Benno ci avenir u ah, bon maa ngi doon déborder parce que c'est tellement compliqué parce que euh, on nous fait croire des choses qui ne sont pas forcément vraies en termes de régime présidentiel mais bon c'est pas grave euh, euh pourquoi cas u Benno bi euh, moi je pense que Idrissa Seck euh, eh ben Seck man leen rek moom xaw a jaaxal mooy mooy Idrissa Seck lan lan <laughs> mais on est on est on est on est candidat à une élection présidentielle pourquoi bah c'est parce que on pense que ni on pense que ni Euh, euh, euh, ki ñu nekkaloon di liggéey ak moom. Mhm. li mu def. ou c'est pas suffisant et que xalaat nga ni yow mën nga ko mën nga mën nga def mieux moo tax nga dem nga ne léegi man bu élection jotee dinaa def parce que kii li muy def nii baax na jàppale naa ko liggéeyal naa ko moom mais man dama partie du principe que ni booy liggéey ak nit boo leen demee ba ba ba ci cappaandaw ga li nga war a def mooy euh, euh, ngeen waxtaanaat yow balaa ngay jël décision pour ne da ngay nekk candidat pour une élection présidentielle parce que yàlla na liggéey na donc assume nga au moins une partie de son bilan. mais lundi waxtaan nañ. ah lundi.

yoon euh, fort bi yàlla def ni amul euh, bon après c'était compliqué il était dans l'opposition Macky Sall mënul euh, xalaatam mënul passé Diamniadio ay peinture kese la fi nekkee après bon finalement il a juré qu'il fallait qu'il travaille avec lui parce que tout simplement amatul choix ndax situation adduna bi ak situation Sénégal moo tax mu mu mu xalaat ni il faut mu ñëw dimbali Macky Sall mhm. moi je pense que c'était totalement faux peut-être qu'il y avait moom kese pour moom kese pour dundam mun na am lu muy dundee ba retraite mais peut-être qu'il avait d'autres difficultés euh, financières yoo xam ne xëy na moom moo taxoon mu dellu si ci Macky parce que aussi ñun si réew mi lañ dëkk ah yow loolu nga gis ne peut-être euh, am na yeneen considération mais pour moi il avait il avait beaucoup de problèmes et puis l'argent xaalis bi mu waxoon ni moom la moom moom la téyewoon ci Ablaye Wade parce que bu Ablaye Wade demee dina a y a pour mën a euh, continuer activité yi mu bëgg ak dundee dundee ni mu bëgg dundee euh, par rapport à sa vie politique pour son avenir euh, doyatul woon il lui fallait benn yoon pour mu mën a taxawaat am de l'argent léegi loolu la def ba toll fi mu toll nii mhm. ba gis na ni léegi il a assez de moyens et qu'il peut tenter éventuellement une chance pour redevenir président de la République. Est-ce que vous dit mis en place mais foofu laa bëggoon mujjee par rapport euh, le président Macky comme quoi que tey le président normalement il était censé partir en 2024. woo ko ñu signé benn accord boo xamante ne après lui c'est lui qui va le remplacer et que après ñu dem ba ci biir loolu réalisé wu. man li ma gis te mënu ma ko waat ci alxuraan. mooy euh, euh, loolu xëj na mën na nekk. Mhm. mais aussi que Idrissa Seck euh, peut-être li mu def nii aussi dina def parce que dina wàññi opposition bi. et que dans l'hypothèse où il un deuxième tour aux élections présidentielles prochaines et que ce soit Macky euh, boo xam ne nekk na candidat ak accordé na la ko et que peut-être que amul suffisamment de plus pour mën a gagner au premier tour. bu baax na peut-être Idrissa ci loolu. d'accord man a doole la. mais surtout le petit garçon.